what up guys what up guys so everybody sama gars yi bëggee ñëpp ñëpp ñëpp sans exception sama gars yi waaw wala loolu quoi bu yàgg suba bëggee naa leen ñëpp yéen ñëpp yéen ñëpp fa la mën a ne rek bon tey bàyyi nii waaw studio benn caméra laa ne man xam fu ne laay prise mooy loolu man sama koñ fu ma neex laay dugg quoi jàmm rek a neex quoi sama yi maa leen bëggee yéen ñëpp yëpp ñëpp ñëpp sans exception di bëggee xoolal nuyoo bu nice ñi nga xam ne bu may débuté ñoom ñoo ma doon get muy kan Pape Daouda di Pape Gueye ñoo ma jëkk a support jëkk a sama chaîne shout out to ma gars yi foo nekk na yàlla jàpp na loxo pour gars yi may laaj euh, numéro téléphone yi mënu ma ko joxee parce job bi may job su joxee sama numéro téléphone parce que ragal ko joxe numéro téléphone moo lay man je suis pas peur de ñoo dugg ci YouTube bi quoi buñ ci duggee buñ ci duggee on s'attend à tout lu ne mën wax lu ne dañu koy dégg quoi parce que nit ki tey ji dem bango te na doo keppal caporal bi quoi wala duñ la dërëj wala duñ la on lu ñu lu ñu lu ñu waxal wala lu ñu kii war dañ koy nangu pare nañ moralement pare nañ ci loolu noonu quoi tu vois parce que ñun tamit dañuy ñëw di wax say nit te ñooñu gënuñu leen parfois man damay wax si ay gars yoo xam ne tey ñoom damay wax si ñoom tu vois am nañ am nañ ay doom am nañ lépp mais parce que lan ku boot bëgg xañ boobu la ñoom ñoo nekk ay star ñoo fës donc il faut ñu wax si ñoom quoi tu vois yaa ngi wax donc man euh, loolu laa ma lu may wax gars yi quoi gars yi may laaj numéro téléphone yi lu ma ko mën a joxe quoi bu ma sañoon ku nekk damay toog yow di wax ak yow wala ku nekk may jokk ak yow mais ak job may job damay déranger ak yeneen ak yeneen mooy loolu ngeen mën a comprendre mais yéen ñëpp laay bëggee asa <laughs> bi xol tax waruma ree parce que tey li may wax nii sama tient à cœur quoi moo tax sama tient à cœur tey dafa naa ci sujet mais Sénégal dafa mel ni barke alxuraanul karim euh, Sénégal dafa am kumba am ndey kumba amul ndey quoi man li may waxaat mooy site boobu porno bu ma sax di jàll si li si kanam affaire du Séné Séné porno xam du ma ko woot porno sa waat site boobu laay bu euh am ben hacker hacker moy gaay yi biy pirater ay ay site quoi le gars nee na moom mooy Kocc Barma quoi xam nga Kocc Barma c'est l'enseignement da ngay jangalé mais waji mo moy ko ci Kocc Barma sama damay bëgg daw quoi parce que Kocc Barma danaan enseigner lu baax lu rafet lo xam tay ji manam ni dañ ci jarignu mais nga ne yow yaay Kocc Barma amo dara lo def lu dul pirater WhatsApp pirater euh, pirater WhatsApp Instagram Twitter di xaar xalé bu jigéen xam ndax am na jëkkër wala amu jëkkër xaar xalé bu jigen bu def euh, vidéo intime Genville di ko wan corom wala di ko wan jëkkëram la plupart ay femmes mariées nga jël leen def leen ci réseaux sociaux yi loolu nekk loo xam ne day immortel ak ah, net bi nu mu nekkee nii loolu war a leen topp di leen topp di leen topp ba maanaam di leen topp ba i sët i sët xam nga l'affaire grave nga nekk jigéen nekk ci gox def benn vidéo sa salle de bain demee ci tout sa sa seen suuf à la rue xale am deux ans di ko seetaan quatre ans nga xaru wala mën nga dara parce que loo xool da def yow loolu nga léegi man la question que je me pose mooy Assane Diouf bu mu nekkee États-Unis bu mu États-Unis di saga di saga di saga injure mais gars yi ils sont partis aux États-Unis influencé ko comme nekki c'est un terroriste cueillir ko indi ko parce que lan doon na leen saaga di wax lo xamné ne neexul gouvernement bi saint fil du wax lo xamné tayji manam manam euh, comment dire gisuñu sen bopp tu vois donc man li bëgg wax moy manam li ma bëgg a wax mooy maanaam tey jii gi ñu ngi sétane quoi c'est les vies qui sont bafouées quoi parce que waa ji man ngeen baal ma si terme bi quoi waa ji parce que un imbécile mooy quelqu'un qui est bas des c'est un imbécile quoi tu bu doon yaa euh, la du ko wane def si net bi bu doon sërëm la du def si net bi bu doon maanaam tey c'est un c'est un def mais day jël ay ay jigéen di leen di weer nga man kii maanaam kii ban genre nit la quoi man laay jéem a kii léegi le gouvernement ñoom bi Assane Diouf doon saaga ñoom ñi dem ah, ñi dem ba États-Unis Euh, kii ko étiqueté ko benn terroriste jël ko dipporte ko indi ko tëj ko pour injure te wala kenn attew ko saa bi léegi waa nekk fële li li waa def moo gën a grave li Assane Diouf def parce que boo duggee ci site bi tu pas mal de Sénégalais ay xale xam ne ay vingt ans la ñoom ay ay xale xam ne ay vingt ans dix-huit ans ay jéeg yu nekk sëy saa bi waa ji jël leen teg leen exposé leen comme ça yàq seen vie quoi l'état il est là muy seetaan loolu kooku mun leen të comme Assane Diouf nga jëlee États-Unis war nga mën a ñëw jëli jëli kooku noonu mais mu ne fi weer suñu suñu yi Saint-Ville loo xam tey ku mu daloon si yow du neex man mi bu ko defoon sama rakk barke rasulaay dama koy wan naa ko fekk ba Canada boobu ne xam nga Canada fan fu ma kii kii kii la kii kii kii il est à kii il ah, mi mi ngi dem def dem sama laaj bu waaye xam nga lu may nuloo kii bi nii yaa ngi dégg kii il est à il est à bannir day mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi yàq société bi te état bi mi ngi seetaan loolu noonu quoi te nag li may wax mooy maanaam tey ñoom état bi tey jii su fekkoon benn rakku ministre lañ ko def ah benn rakku ministre lañ weejee noonu wala benn rakku député wala président non dinañ jël ay parce que rakku ba baadoole yi la jël di leen di di leen teg si exposé si site ñoom ñuy seetaan quoi tu vois mais ça me fait mal le gars là vraiment c'est un kii vrai mbaam xuux la quoi non vraiment jigéen léegi moo perte valeur jigéen dafa commencé perte valeur bu njëkkoon bu ñu la waxee mariage nu mu daan demee waa ji day miraas boppam ay dëgg naa ay jaasi or lañ doon joxe ay lu ne jigéen am valeur tu vois jigéen am valeur tu vois mais léegi xoolal ñoom euh, ñoom ñi euh, boo jëlee affaire bi quoi maanaam euh, jigéen ñi léegi dafa maanaam jigéen ñi léegi dañoo dévaloriser seen bopp safatuñu dara dañ gis benn gain bu yore xaalis tey ji boo naka booy bu leen booy bi naaj da nga mën la jox ma booy parce que xaalis la ñu gëm ma mu ñëw nga nag invité la rek du la doxaan sax invité nga dem xool ma jigéen ñi dund du la doxaan invité la nga dem yaayel commencé nga wax chéri parce que am na xaalis mënuñu muñ oto bu rafet mënuñu muñ scooter bu ñu ñëwee seen kër ñu karale ko marbre ah marbre nekk fa rek wala dax def inventaire sa borom boutique yi yaay matérialiste jusqu'au cou tu vois moo lu ne di leen dal ku ñu takk ku ñu takkagul nga nekk si salle de bain di def ay di di wu di ko vidéo sa benn far bu dee borom jëkkër sa mën naa quoi sel da ngay masturbé wut def taatu neen ah te doo gis ko am ndaw nag yow dañu amoon boo yow bu jigéen amoo moo comme jigéen dafa mën ni kër léegi sa amoon ndaw day mën ne bundu kër na waaye léegi nag comme que bundu kër amatu fa mais yow bagage yi bu ko ay salle di kii ay farak yooyu noonu di vivre sa far mën ni ko vivre sa jëkkër ah. après yow bu yi dalee sax papa naan bu la ko waaj la mais bu la leen valeur ah jigéen léegi Sénégal yi ñaan da ngay ñëw ne gel nopp naa la du la wax mukk déet parce que naan dóor la koo la rek boo ñibbee mu commencé ma lundi ñu la dama am ma reer sax yi tëbaat jeudi vendredi nañ dem waale mais ak comme mais jigéen léegi ñàkk valeur am amatuñu benn valeur benn valeur defe na léegi ñoom non non mais mais da ngay doom bu jigéen parfois parce que tellement jigéen ñi léegi dañoo wàcc seen ànd doo xam ne yow qu'est-ce qui se passe mais amaa doon valeur Baye Fall amaat ngor mais ngeen nekk ay joué góor ñi jàppee leen ay joué góor gu yor xaalis jàppee leen jigéen ay joué leen du ma ne ñëpp nag am na exception bi da nga xool la majorité la majorité nga xool bu ñu ne Afrique na ah, bu ne Sénégal pauvre na ah, du Sénégal gëpp pauvre Youssou Ndour pauvre Cheikh Mar pauvre mais bu ñu la majeure partie dañoo pauvre noonu la exemple bi demee bu ñu ne jigéen ñi léegi xamatuñu seen valeur bu ñu jigéen ñi xamatuñu seen valeur on ne s'adresse jigéen xamatuñu seen jigéen yi yenn jigéen sax xam parce que tellement dañu wàccee seen bopp mën a ñaan dañ ñaan góor ba góor ñu daw lënd may ma damay dem xew tëb maar de dama dama xiif mais comme comme ñu jógee Somalie wala Éthiopie non non non c'est du n'importe quoi quoi waaw da ngeen di xool nii ba pare léegi coono ni bon na lu leen neex la ñuy sol tu vois la ñuy non non non xam nga bu njëkkoon damay nekk booy boo nekkee nga daan gis seetaan fi mu tubaab bi tubaab bi sol ay may de bain quoi yow nga naan la tubaab bi tubaab bi ni ñu mën a xool jigéen ñu def taatu neen Saint-Ville seen awra jógul ngeen baal ma parce que boobu yow awra day jafe doo gis ay jigéen Sénégal jigéen ñi bu jëkkoon dañuy tam aay ba ñu nekk mag da ngay fóot góor yi dañ daan foo léegi xale bu la a a a a xam sexe du n'importe quoi ah nga loolu noonu nga daa daam si nga ne ko solo si tuba yi loolu mooy mooy jar moo tax si yi léegi fekk jigéen boo xam ne tey tey ji maanaam mais am na sept far muuru doxaan na demba doxaan na cinq far ci gën a nooy ñëw takka nga takk ko am na jigéen dañuy tëdd ba di oo seen far yi oo seen far ci sëy bi wala di oo seen far di ay góor di dund loolu noonu am na góor dee seen néegu sëy parce que góor ñi ñooy sëy léegi am sa jabar muy oo ay faram boo ko ooy ñun la génn na xam nga sax fu mu dem mu ñëwee na la bu ma mën a sëy du dem parce que dëgguwul jigéen ma may cinq far dundee kii oyof sër isaan nga jël ko fekk mu doxaan ne mu gën a ay vingt góor wala sept góor nga gaan takk loo fa dal yow la loola fa dal yow la jigéen ñi mooy loolu moo tax sëy sëy léegi yàggatul yàggatul bu jëkkoon dañu ko naan jigéen bu bu ëmbee xam na xam na ki ko ëmbal mais loolu sa a ak sunu temps loolu loolu valable tul c'est plus valable parce que jigéen ko ko borom mayga ko ko biiral waaye équation boobu <laughs> boobu taxawatul waaye donc jigéen ñi laay ñaax c'est nos sœurs quoi il soo gisee ay Penda Mbow da ngay kontaan exemple si si bi nii rek nga gis jigéen ñoo xam tey da naan yàlla ma yàlla may sax ay ay ay mongol yu góor moom ma gën a loon mongol nañ ma baal je n'ai rien contre eux quoi terme la rek quoi tu vois moom sama gars yi loolu loon quoi léegi pour revenir au sujet mooy waa ji état Sénégal na def dara quoi parce que le gars il est en train de bousiller des des vies quoi mu ngi yàq ay dundu xale yu ndaw ay lu ne seen fil état bi mu soxla Assane Diouf dafa dem jël Assane Diouf fekk fa mu ne këyir ko États-Unis mu gën a sori te waa ji fii la nekk Canada nekkoon ci ban ba si di mën nañ ko jël on a on a des informations on a tout mën nañ ko remonter jël ko jàpp ko mais nañ ko def da ngeen xaar mu laal benn bu defal ko doomu ministre wala benn doomu tëpp ngeen ngeen soog a si jóg mais ah lan doomu di di non ah te connexion bi Macky Sall gars yi wax naan ay connexion bi dañ koy filtrer ak affaire am en tout cas connexion loolu c'est un recul démocratique loolu recul démocratie la connexion da nga siy jël lii baax da ngay conseillé sa doom boo ko amee wala conseillé ngay mu jël ci lii baax li bon mu tekk na le ah mais une grande démocratie nga da ngay filtrer nii nii nii le président je suis pas d'accord avec toi ay ay ay ay loolu c'est un recul démocratique ñun nous sommes des personnes bien sensées bien bien éduquées mais bu gën a yow léegi da ngay segg kii bi nii mel ni ñun ay xale yu ñu yaraat la mais c'est pas ça donc connexion bi nañ ko bàyyi mu dem sama gars yi inchallah loolu tey sama vidéo bi du bëri ay comique quoi parce que dama xaw a mer dama xaw a mer sa waa ji te ba léegi gars yi ñu ngi koy bàyyi ko maa leen di bëggee ñëpp yéen ñëpp maa leen di bëggee sama gars yi bàyyi ma Sonko naa si ñëwaat de am na gars yi naan bu ay Sonko la àndal politique affaire noonu day question ànd ak Sonko man soxla ma ay Sonko jox a les mêmes visions moom laa gëm moom laay jàppale su ma kii moom laay wax ni ku neexul yaa xam I don't give a di mooy loolu da sama gars yi bëgg naa leen bon vidéo yaa ngi ñëw Sonko mi ngi ñëwaat Babsik la sama rap mi ngi ñëwaat ak yeneen thème cent quatre-vingts giga la yi bëggoon ma xew ñu bëggaat ma xewiwaat ne leen li ma dessin si ay ay ay ay idée man na cent quatre-vingts giga